ku waat ko ci sound girl power never disconnect nga gëstu gi big up ni féminise game bi fàtti mu saw foo bi ng gëm loolu rab bi du foo si sa kumis di bàcc muy leer ba bëgg mi feeñ ci alif rabu jigéen bi def na kër demal nga wax ko pon si sa faarut na si teen day mun a fekk fa barka geel fàttu konde sut la def bishit bi si sa si sa jaay jigéen ci biir jëngal ibi di gën a crazy musu kenn nga open mi na meññ di praising girl

wuti li wuti biir nit Malika Fatima déplage mun di ci nii la di a Babou One Love Mélomane yëpp merci Biga Babou. Do what you gotta do, don't believe the hot guy like King Kenny, don't kill my vibe, nigga. Uh, yeah, niggas don't kill my many melodies and you fly. Kiss on my own head, meditate when you try. Expose your summer job, check feeling. Naturally, do the back, you say that really unfortunately. Niggas, you complete guilty, fortunately artists. We ride tongue, depends on my code. Discover many universe, rap up and put my glow sometimes. More change to my music, music change to my mood. Reflection of my life, music with a fest to blue, don't be afraid. Pour definitely make you some more. Niggas here talk nonsense, build up a loose, just time artist. Never say never. Do what you gotta do, whatever. Doing it better. Niggas talk a lot about what traffic is some of Good vision of people have stock any brand piece. The masterpiece will release, please, this is hand of the streets. Bring the heat, niggas of destiny lays deep. Water on deep, murder than beach. Uh, it's been a long time that you drop me no sleep. My experience. She be music that's summer day come. Got ambition like an animal, so never summer brain turn. In the big shoulders from any trouble. You suck some blood, tell them I need double ways. They wild in a true face, make it jalala. Your business is dirty, send it benefits to harm. The cure they step back, they take the fate. How niggas you donate, bitches declare the grades. Enemies he donate friend, friend he donate enemy. But anyway, we can't nothing get some my energies me analyze. Tell them we recognize this kind of eyes. Wicked man up burn me, they up in up the lies me analyze. Tell them we recognize this kind of eyes. Wicked man up burn me, they a bitchy body with niggas he cop with the kind of shit. Niggas, you lose control of life, it's time to leave the blind. Get across the line, niggas, we in the prime. Elevate the home, we in the prime. Some of mine will bring me down to beats. We're freaking tall, my mind will feel too many flavors. Good music that beatable to fix. If happy that gym and wisdom will give me good behavior. Media may control the mind. See this other door goes around. Comes around, blend and let it flow. Brain MCs, Smash them tees <laughs> up. They chop shut up by learn them streets. Enemies is on a friend. Friend is on a enemy, but anyway, we came to think with summer energies. We came to think with summer energies. Uh. Let me take time and make time. It's not a joke of knives, bringing deep like a big knife. Niggas so so, nigga think you some of that. Niggas never rock slow. Tell the boys, the super ghetto boy got thrown. Call me nigga, you phone no ghetto love, put it on phone. We on the round, we right now, that's it. Now let's, so baby, get the summer cloud, basement, wall. feel like he gets cash, bro. I'm not a rapper, not I'm an artist, but moving fast, bro. Dama bi suura bul jox ma sa bopp waaye dama eat nigga. parce que moo ngi lay. et puis laa koy yemale gars yi si kanam dinañ ñëw. respect gars yi. Hey, daje gratuit. Jiifal ko. Xam nga ni maa la yow du yomb na dama la duma ma gis ma waxtu sew seen na mu bëri nag ma xew sànni ma sa xeer yi ma tere te bi mais avancé ah. gën a jëm ci kaw non non ni nga doo fuloo da ngay bañ bañ lu mais doo fuloo dëgg neexul mais ku nekk sa wéy tey xam kuy sa maam maam kuy oh dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la gonna be up. Either way you go, one look three, they can't be multiplied. Yeah. Uh. Chozi sembi le bla tebi ramye flow we nice in your bla I dig in some sinya chozi se complain ni nigga don't ambulance solo mo pembe ama tuma sa se tele si sen game di mo di mo friend it's all my money many go your local in that big body the tare my nigga take this cause yeah Yeah. sama loxo bu ko maa biir teg na sama yéene ni mu positif